salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki keur Moussa ñi ngi leen di nuyu ñi leen di ziarra di leen balu ak te di leen bal ak di leen déwénati nak ci bes bu tedd bi di bal ñepp di balu ñepp di ñaan yalla nak mu fekke lo ñu déwén ñu bare bare bare te rafetu fekke ah di nuyu nak kep ku nga xamanteni yaangi nek ci commune waye nak rawati na ñi nga xam ñu ngi yewoo aussi ci biir keur man la seen dom soxna Aram jaay dëkk fi ci keur bokk parti de l'unité et du rassemblement gën koo xam ci parti PUR nekk aussi ci yeewi askan bi ñi nga xamante ni ay parti coalisé muy le PUR Pastef bu Ousmane Sonko taxaw bu Khalifa Sall ak yeneen parti ci bokk yépp ah wax dëgg yàlla tamit di sedd ci ni yeewi askan bi ku nekk xam na ko kenn dut ko présenté ci ci commune Kër bi waaye nag dafa am lu ci yokk ñu koy tuddee inter coalition Yewwi Wallu ndax suñu mbokk PDS yi dañ cee dolliku si kon tam loolu mu nekk lu ama am solo ñu koy saluer wax dëgg yàlla dellu si waa tam di leen xamal ni seen doom la bu ñu investir au niveau du département ñu nekk deuxième à mu nekk tam loo xamante ni ah lu am solo la ndax musul am ci euh, histoire politique ci départ ci commune Kër Moussa ba ñu xamee kër Moussa ak politique ba léegi kenn mosul gis ñu investi doomu kër Moussa ci liste député waxtuma nag mu nekk au niveau du département kon loolu tam am na lu muy symboliser ci biir commune bi kon tam am lu nga xamante lu ñu yàlla defal la muy sagu kër Moussa kon yàlla fekk ñëpp xam ko ah ma di leen xamal ne candidature aussi nekkul candidature Aram Ndiaye nekkul candidature parti pur kese ndax candidature département la candidature Kër Moussa nag ndaxte wax dëgg yàlla bu ñu xamee lu ñu yàlla defal kon kenn ku ci nekk da ngay jóg takku te xam ne lii njaruñu Kër Moussa la sagu Kër Moussa la te bañ koo jàppee parti bi moo ko moom wala parti bi moo ko moom mën daal maa ngi tàllal loxo képp koo nga xamante ni yaa ngi yeewoo Kër Moussa yaa ngi yeewoo ci biir commune Kër Moussa aussi ñu jóg takku liggéey jàppoo nekk benn ba candidature bi yàlla mayu ci ndam ba ëllëg bu ñu taxawee dañ naan ah doomu Kër Moussa kat moo taxaw ci assemblée ndax ku ne xam na ni ah yi fi nekk bari na coono yi département bi jànkoonteel bari na commune bi li muy jànkoonteel bari na yooyu yëpp tamit ñu nekk doomu commune bi di xam li fi ne gis nga xamante ni moom la askan wi jànkoonteel ñu am yéene ëllëg bu ñu yàlla mayee ndam ñu taxawal askan wi ci assemblée bu boobaa lépp luy soxla askan wi buñ ca fekkee ñu koy càmbar mbaa ñu koy nas mbaa muy dem faneen bu boobaa ñu xam ne doomu Kër Moussa nga fa taxaw pour bay ci aw laajtam day ci waaram bu ëllëgee la commune la département yeneen yi di am suñu département am ko la commune yi am Kër Moussa am ko loolu bokk na ci li nga xamante ni bokk na suñuy objectif ah beneen ba ca des tam ñi fi nekk ñëpp jàpp ni lii kat luy jëmale Kër Moussa njariñ la jàpp ni lii luy jëmale département bi njariñ la ndax bu ñu xoolee ci investiture bi tête de liste mooy Birame Souleye Diop nekk maire Thiès Nord nekkaat nag deuxième ci euh, pastif kon bu nekkee tête de yàlla dogal ñu yëkkati seen doom taftal ko ci moom mu nekk deuxième à la dëkk Kër Moussa loolu tam ndamu Kër Moussa la wëlbatikuwaat jël troisième bi jagale ko Alassane Ndoye bu wallu ngeen xam ko bu baax muy seen mbokk yàgg jëflante ak yéen ku ne xam na ne Alassane Ndoye ku ko tudd ci Kër Moussa kenn du ko laajte kon kooku bu fekkente nekk na ci liste bu dul woon man sax Alassane war naa tax ñëpp taxaw ndax waa Kër Moussa kenn du li présenté Alassane Ndoye kon boobu beneen la bénéfice la ci ñëw ndax Kër Moussa ak Jandeer sorewul. quatrième bi quatrième bi soxna Léemu Touré adjoint boo xam ne adjointe maire bu Pout nekk taxaw foofu tam nekk bénéfice ci Pout kon diggante puut Kër Moussa ak Jandeer yàlla defal nañu fi sakk waaye nag sakk ba la muy neex neex. yàlla na fekk yéen waa Kër Moussa ngeen xam ne seen doom moom la ñu investir kon Kër Moussa moom moom ndam bi moom moom sag bi ah su ko defee nag foofu ñu ngi ci delluwaat di leen woo di leen tàllaloo ñun ñëpp góor jigéen mag ak ndaw waaye nag su ma nee góor ak jigéen mag ak ndaw dafa am fu ñu jaaroon ndax ku ne xam na ne ku tudd jigéen tudd développement te kon nag sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen ci woo surtout yéen ñi nga xam ne ku fi falu nag yéen ko fal ku fi falu rek yéen a ko fal ku taxawal ay kaaram yéen rek la ci séntu ndax xam nañ ni ñun mobilisation ci ñun la commencé ci ñun la yem taxawaay ak nangoo dem voté ji rang voté ci jigéen ñi la yem kon nag loolu ñu ngi ñaan bii bu leen ci kenn jiitu bu leen ci des gannaaw benn yoon ndax tam seen mbokkum jigéen lañ tabb nekkaat doomu Kër Moussa nekkaat nag actrice de développement kon loolu lépp dajee xam nañ li yellu ci askan xam nañ ni jigéen ñi jànkoonteel rawatinaa nag fii ci Kër Moussa kon loolu moo taxit ñu yëkkati suñu tànk fas yéene ëllëg bu ñu taxawee xam li nga xam moom la jigéen ñi jànkonteel ci commune bi xam ne jigéen ni jànkonteel ci département bi ñu bay ci suñu laaj ndax tam nag jafe-jafe yu bari na ndax yemuñ ci commune bi kese département bi boo fi duggee problème infrastructure dafay posé problème mu santé dafay posé coono yi ak chômage bi loolu yëpp dafay delluwaat ci métti métti yi askan wi dund yokkute dund bi métti na te li ci gën a métti mooy jigéen ñi ñoom ñooy jànkonteeg moom ndax bu dee dund gu cher bu góor joxe dépense am jigéen a dool dolli toogu ca mbaa jigéen ay fexe ba mu neex ndax pour sa doom jàngi ba ñëw du ni papa a añ ba du ni papa ana reer ba yaay lay laaj kon nag loolu tamit jigéen ñi xam nañu seen coono ak seen mettit ba tax na loolu bokk na ci suñuy xalaat bokk na ci suñuy njafe suñuy metti metti ci loo xamante ni ñu ngi ko fasaale incha allahu rabbi beneen ba ca des mooy li jëm ci wàllu yoon yi ndax communes ci département bi bari na fu mel ni Ndiéyène Sirah tey boo fa doon dem da ngay da ngay yéemu ndaka na fi ay nit mën a nekkee di dem ba jigéen joo xam ne dafay dem ba war na loor war a mën a mucc toll ci diggante boo xam day génn pour war a mën a dem distance boobu ak ni mu soree ak yoon boobu ni mel nga dugg commune Tasset moom it la chose tali bi Tasset la yem dëkk ko wër yëpp amul aw yoon ci zone nord gis la fa nekk liggéeykat lañu ay jàmbaar lañu la ñuy investir kenn xamul nu mu toll ci wàllu mbay waaye amuñu fu ñu ko jaaye amuñu fu ñu ko denc te loolu tam jafe-jafe la te am na lu ñu leen doon jàppale ci wàllu euh, dencuwaay moo xam ay chambre froide la yoo xam ne ëllëg bu ñu bayee bu mbay ma baree ñu mën ko caa denc ba du yàqu mu nga dellu siwaat fii zone sud jafe-jafe yoon baa nga fa jafe-jafe ndox nga fa demal fii ci tuuri tout près problème ndox la ñu am nga ñëwaat fii ci biir sant bi benn école benn lycée fi am ci lu ñu xam xale yi sonn lool di doxi fii ba mbul di doxi fii ba kayal fu nekk ci naaj bu tàng bi te loolu tam dafa am lu nga xamante ni mënoon naa am mm, ba coono yi xëy na bu mënu deñit mu wàññeeku ndax buñ leen accompagner woon ak ay kaar bu xale yi xëyee man cee dugg dem bu ñu ci kaar yi jëliwaat leen au moins na xaw a tane te yooyu yëpp jafe-jafe yu jaboot yu dund la ñu gis ko loolu yëpp tamit xam nañ ni fañ ko mën a càmbare fañ ko mën a jooytoo fenn rek la ndax ku ne xam nañ budget bi dugg ci réew mi lañ ca war a mën a am xëy na amuñu ko ci ndax buñ ko ca amoon mën naa am jafe-jafe yi am ci département bi mën naa bañ a mën naa bañ a baree noonu département jafe-jafe yi am ci biir commune bi mën naa bañ baree noonu lépp dafay laaj rek nga am ku la kaasal tax bu ñuy séddale cër ka taxaw mooy séddu ka tëddi nelaw du am bu ñuy séddale cër yow ma nga xamante ni yow yow la sa njaboot taxaw bu ñàkk di am ka fa njabootam nekku mooy ñàkk kon nag loolu moo ñu poussé ba tax ñu ñaan képp koo xamante ni yaa ngi dëkk ci commune bi ñu ngi ñaan nga jël candidature def ko muy sa candidature boobu takku taxaw incha allah rabbi bu ëllëgee yàlla may ñu mën a taxaw luy soxlay askan ñu man koo kaas luy soxlay askan ñu man cee wax luy soxlay askan ñu mën cee mm, mën cee dox ba yàlla defal ñu sutura ba suñu commune mën a changé suñu département aussi mën a changé. waaw ah, kon ah, commencé nañ na campagne bi ñu ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu leen ci woo yéen ñëpp nag te di leen jox dig daje ci yeneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah